bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp rawatina waa diaspora bi di am mbégte di dajawaat ak ñoom fii ci jumaay Tuubaa ju ji mu am nag ndaje moo xam ne dañoo baaxoo di ko daje waxtu at mu jot suñu màggalee ba noppi ci kër Serigne bu so ngir waxtaane fi liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñu seq muy daayiratu muqaddamatul xidma te loolu nag jotewul dara ak semaine bi yépp ajjuma gaaw dibeer altine talaata àllarba yooyu yëpp bu ci nekk daayira muqaddamatul xidma am na mbooloo moo xam ne ñooy xëy si ci jumaa ji bale ko ba mu set wecc ñu raxas ko ba mu set wecc ñu delluwaat jumtukaay yi ñuy jëfandikoo wóor na leen wóor yàlla ne doon luy mën a yàgg espace bi dafa yaatu te karo itam day dafa ay ci matériel tax na matériel yooyu itam matériel de service yooyu dañ koy soxla te xaalis bu baree bari lay jar moom itam alxames rek la waa asxaabul na di taxawee nga xam waaye yeneen yi ci des juróom-benn fan yëpp ci biir semaine bi daayira muxaddamatul xidma ñoo koy taxawee ak jumtukaay yi nga xam ne nag mënu nekk na lu munta ñàkk te mënee su koo ñàkk taxaw yooyu yëpp bokk na ci yi nga xam ne ay frais la laaj yu baree baree baree bare ajjuma ju ne ajjuma ju ne ñoom li ñuy participer ci dépense mooy nekk quarante mille francs waaye quarante mille francs yooyu ñuy joxe sëñ Afia danañ tegaat quatre-vingt mille francs kon liggéey bi diis na lool ci kawam njiit nag moo metti waaye depanse bi quatre-vingt mille francs lay doon yenn sa yenn sagaru quarante mille lañuy ñuy mat la ñuy jëm a lijjanti teg ko ci loxoom mu tegaat ci yeneen quarante mille moom ngir toggale ko daayira bi añ waaw dama ko ginnaaw di ko wax nag xëy na su ko déggee lu lu ci teg baax na <laughs> waaye noonu la demee day laaj rek ay nit nag buñ seqee mbir ñuy xam na muy doxe ren nag ñu gis ne bi ñu fi dajee ci kër Serigne Afia waxtaane nañ lépp loo xam ne mooy taxawaayu daay daayiratu muqaddamatul xidma waxtaane it li nga xam ne mooy finance bi nga xam ne waa daayiratu muqaddamatul xidma ñi ngi koy dépensé ci at mu ne ci secteur yu bari yu wuute ci loolu nag waa Angleterre am itte ju rëy ju am solo joo xam ne xalaat nañ ko bàyyi ko xel lool te mooy dépense bi nga xam ne mooy dépense u bi nga xam ne moom la ñuy dépensé ajuma ju jot di ko toggal ñi nga xam ne ñoom la ñëw ci subateel gi liggéey ba dix ñu dellu seeni kër waaj ñëw eggale liggéey bi auzubillah bismillah inna waliyallah watal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawiru xalbi arsida barke borom tuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit àdduna rawatina wa UK wa Angleterre seen bokku taali bi moo leen di nuyu te di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaanal bu baax jëwriñi murid yi Cheikh Modou Mountakha mu gën a yàgg te gën a wér ka sàllika noonu lañ ko ñaanale sëñ Modou Mbenda Fall sëñ Amdi Modou Mbenda di nuyu bokku taali bi yëpp nag xam ne ne vidéo bi ñuy def nag ñoo ko def ci yëg-yëg ak yéene ju ñu am ci liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaam ji teddu ji waaye liggéeyale ko ci murit ya nga xam ne ñoo fay daje ajjuma ju nekk ngir defar barab ba yeesal ko lal tàppe yi jubbanti sàppe yi bale ko suñu noppee ñi defaraat ko ba mel na melatoon bu noppee lu doo ko dellu ñooñee nag lañ fas yéene nun jaayante ak Sëriñ Tuubaa fas yéene leen yoral añ ba nga xam ne ni bu ñu liggéeyee ba noppi ci la ñuy xewlu buñ ko calculer jortu naa ne ajjuma yi at mépp cinquante ajjuma lay war a doon wala cinquante deux ndax léeg-léeg weer weer teru am ci juróomi ajjuma waaye loolu lépp nag ñu xam ne liggéey la boo xam ne ñoo ngi ci woo képp yaakaar sëñ Tuubaa di tàllal suñu loxo ak foo mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew nga dugal ci sa loxo fas yéene kenn ku ne murit bu ne jéem a gàddu benn ajjuma ci ajjuma yi nu fas ko yéene nag dajale ay taalibe waaye fas ko yéene am tàmbali liggéey bi nag ci incha allah bi bu at mii dee deux mille vingt bi bu janvier bi teroo ñu tàmbali ko fas yéene mu wéy ñuy ñaanit képp koo xam ne yaa ngi jaayanteeg sëñ Tuubaa laxasaay du ci dugg mu wóolu ne sa giirug dund nga koy jaayante at mu ne nga joxe ci benn ajjuma ngir ñi liggéeyale ko sëñ Tuubaa ci ña nga xam ne ñoo fa nekk ndax ña fa nekk ñun lañ fa nekkal. ñun ñu ne ci àll bi it ñoom lañ fi nekkal lii ñuy wax nag ci ndigal lañ ko teg ngir lépp lu taalibee jëf te amu ci ndigal jëf ja mën naa ne mën naa bañ am solo waaye nag dañ koo ki ndigal teg ko itam fas yéene jaayante ak sëñ Tuubaa ndax kenn ku ne am na loo man te li nga man sëñ bi xew bu ko nawu ko waaye nag ñun ñi xalaat ne war nañoo mën a fas yéene jaayante daal ba añub jumaa ji nga xam ne moom la waa jumaa ji añe par ajjuma ñu jaayante ko sëñ ba loolee daayira ba koy def ak kilifa jotaay ba koy def loola wàcc leen nun ñu fasoo ko ñu ngi ciy woo ñëpp nag. liggéey boobu nag da xam ngeen ne dafa nekk liggéey bu diis ndax dañuy xëy bale ba mu set wecc ñu fobeere ba mu set wecc ñu lal yi ba mu jekk ñu dellu su bëccëgee ñu ñëw taxaw ci bunt yi ñenn ñu nekk ci biir sàppe yi jubbanti sàppe yi defaraat taxawaay yi taxawu nit ñi jullis yi ba ñëpp jaar lépp jaar yoon. bu ñu jullee ba noppi ñu delluwaat lemaat tapis yëpp delloo ko fa mu nekkoon balewaat barab bi ba mu set wecc ñu door a nag jublu ci xeew xeewlu te xam ngeen ne waxtu woowu ñi xam ne du ñu ay boroomi kër ñëpp su ñu ci ci liggéey bi jamono yooyu la añ di kon duñ mën a añwaat seen i kër te am na ñoo xam ne fa ñuy jógee it sori sori waay goo xam ne même bu ñu leen bàyyi woon duñ mën a añee ji seen i kër loolu moo tax daayira bi ba mu sosoo ba fii may wax ak yow 1994 ba léegi ajjuma ju det day togg añ añ boobu muy togg nag ni ñu leen ko leerale woon ci euh, daje moom nga xam ne moom lañ daje woon kër Sëñ Afe tax na Serigne Fallou Diop mi nga xam ne moo jiite daayiratu Muxaddamatul Xidma ci Angleterre ak li ko wër ànd ak Serigne Abdou Akim Mbay ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal ñëpp jóg nag laxasaay wax ne ñoom day poñ bii ñoom fas nañ ci yéene liggéey Serigne Touba te loolu mooy wut. ay lu toll ci ajuma yi nga xam ne moom la ñuy liggéey yépp ci at mi mu war a toll ci cinquante de ajuma ñu def ajuma june ñu joxe dépense bi loolu nag di liggéey bu rëy bu am solo boo xam ni euh, li nekk ci joxe ñam ci ay xéewal rëy na lool waaye nag Cheikh Abdoul Khadir daan daana wax ne Cheikh Mouhamadul Moussa waxoon na ko ne sa baay waxoon na ne lu baax day fu ne la baaxee waaye Tuubaa la gën a sakkane tax na nag jàpp nañ ne euh, Tuubaa it fépp a sakkan waaye jumaa ji mooy fi ci gën a sakkan ndax li ñu dégg Sëriñ Tuubaa wax ko ci dégguñu mu wax ko ci feneen donte nag Tuubaa gépp jumaa ji la waaye nag jëmmi jumaa ji ci bopp bi nag mooy jumaa ji tax na nag ñuy sant bu baax Cheikh Mamadou Fadil Diop ak Sëriñ Abdou Hakim ak ñi ñu ko seqal waaye nag di soññu bokki taalibe yëpp di leen wax ne pas-pas bu rafet bu rëy boobu ñu am am nañ ci ndigalu daairatu muxaddamatul xidma ndax ba mu ko xalaatee rek jokkoo na ci ak kilifay daayira bi te kilifay daayira bi itam jox nañ ko ci ndigal ci mu coordonné ko ànd ko nag ak sëriñ Assane Diop ñu ngi koy nuyu bu baax moom mi nga xam ne moo coordonné liggéeyu daayiratu muxaddamatul xidma ci diaspora bi mm, te bu jaaree ci loxoom rek dana jaar fi mu war a jaar ba agsi dana itam mën a taxawu liggéey bi ba mel na mu war a mare mel lépp ñuy soññi nag bokki taalibe yëpp di xam le ne liggéey daayiratu muxaddamatul xidma ajiwul cim réew ajiwul cib dëkk wul ci xeet wul ci leneen ci taalibey Sëriñ Tuubaa yi rek la aju kon nag fu taalibeb Sëriñ Tuubaa nekk te bokk ci daayira Muqaddamatul Xidma donte waa Angleterre ñoo ko tàn tàmbale bu kenn jàpp ne bokku ci bu ko kenn féetale waa Angleterre bàyyi ndax xéewal gi mën naa yaatu ba daj fu ne loo xam ne nag xéewal la goo xam ne ku ne mën na cay jariñu te mën naa yaatu ba daj fu ne koo xatal yaa ko bëgg xatal waaye kenn xatalu ko ñoom xataluñ ko te xam naa ne sëñ Fallou ak sëñ Abdoulaye Kim ak ñiñ ko seqal lu baax lañu ñu seen bopp moom lañu ñu yéene taaliba yëpp sori nañ nag ndax wax nañu ne am nañ lu mat fanweer ak nangam ci juróom fukk ak ñaar waaye ñu xam ne nag dañoo waxoon ne nangam la ñuy dépensé loo booba suñ toll suñu doole def faa toll ñu di ko defee noonu noonu waaye ko gis mbooloo mi ñuy añal xam ak fi marché bi toll nga natt ko ci sa kër da nga xam ne su yokkoon it mu gën waxuñu nag ne li ñuy joxe dafa tuuti ndax. rëy na ci ñun lool ndax ay at a ngi ñun ñoo koy def dañuy def lenn li sëriñ Afia def lenn li te itam bandone wuñ ko bàyyiwuñ ko defuñ ko leneen waaye nag bu ko suñuy bokki taalibe jëlee yenul na ko it dañuy xam ne yéen dañ ca amoon sotti na te ñoom it war nañ leen may bunt bu ñu mën a jariñoo ñu bàyyi leen ñu jariñoo ko tax na nag su demee ba mën a yokkit bu yokkee xewal lay doon waaye bu ñëwee te tool nam daan toll ñu defee ko nañ ko daan defee rek kon nag Serigne Fallou ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen soññ bu baax di am yaakaar it ne liggéey bii day day loo xam ne sëriñ Touba moo leen koy liggéeyloo rek ndax bëgg a sëriñ Serigne Touba yomb na waaye Serigne Touba liggéeyloo la nag mooy li jafe te lii nag ku Serigne Touba di liggéeyloo rek moo ko mën ndax ñi di yandu ci liggéeyu Serigne Touba bi ba war a wàcc nga añal leen. te ku la liggéeyal bu añ jotee yaa ko war a añal kon yéen da ngeen a wóotu da ngeen a fas yéenee wóotu Serigne Touba ci ñi ko doon liggéeyal ngir añal ko loolu nag kenn du leen ci digg dara dañ leen di bàyyi ak Serigne rek tax na nag fu waay nekk mooy ci biir réew mi muy ci bitim réew muy e, e, Angleterre googu muy Europe gépp muy Amérique gépp muy Afrique gépp na ñëpp xam na ne liggéey la bu mën a yaatu boo xam ne xataluñ ci kenn ku mu sob ku ne mën naa tànn bokk ca waaye nag na nekk benn coordination boo xam ne lépp day am fenn fo muy jaare ñoo xam ne nga xam ne bu matee mu xam ne mat na suñu waree jàll ci leneen it mu xam ne war nañoo jàll ci leneen mu xamale ko ba ñëpp xam ko kon nag ñu ngi ñi ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam le ne ñoom ñu ko yëkkati kat lu jiitu ñu koy yëkkati waxtaan nañ ci ak kilifay daayira bi sëriñ Afia waxtaan ci itam ak ñi nga xam ne ñooy amee liggéey bi ba am ci ndigal ndigal nag mooy tax jëfa nangu laa tafaalu shay'an bi gayri izni fal iznu sartun fi xaboli sha'ni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullah euh, ginnaaw bi ñu jiitalee ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Modou Mountakha yàlla na fi yàgg tànd ak wér euh, di siyaare sëriñ Yaafi Bousso al imam euh, di am mbégte lool nag di ñëw nag di indi ab leeral boo xam ne mi ngi jëm ci ay bokki taalibe ay murit yu am pas-pas fas yéene liggéeyal Cheikhul Khadim ci jumaa ji muy waa daayira Touba Angleterre ah noonu tam dañ siyaare waa jasporaa yépp diggante Amérique ak Europe ak Asie ak Afrique ah, liggéey boobu nag mi ngi jëm ci ah, taxaw ah, lu jëm ci añ yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci jumaay Serigne Touba ji waa Touba Angleterre laaj ci ndigal ngir fas yéene ko def muy seenu mat eh, ngir ñu fas yéene ko wàcceel daayira bi loolu nag mi ngi sosoo ci bis bi nga xam ne Sëriñ Afi Buso dana koy amal bu màggalee ba bis bi dellusi ci digganteem ak waa diaspora yépp ci cant ak ngërëm ci la Sëriñ Abdul Ahad Muxtaar yëkkate ay kàddu ci ndigalul Sëriñ Afiya leeral taxawaayu daayira bi ci ni waa ba diaspora bi ànd ak ñoom ci liggéey bi jaajëfal leen eh, bi ñuy yëkkati jataay tamit ñu ñu gaaral leen yi nga xam moo yitey daayira bi ah, leeral leen tamit li daayira bi di taxawu ci entretien bi ak ci lépp lu ay fare ba ci la indi woon añ yi nga xam ne daayira bi mi ngi koy taxaw ci ajjuma ju ci nekk mu toll ci quatre-vingt mille francs CFA fukki junni ak juróom benn loolee nag biñ ci eggee jëwriñ sëñ Fallou Diop mi nga xam ne mooy coordinateur général bi nga xam ne moo nekk ci euh, Angleterre ànd koog jëwriñ ya fa nekk yépp ak sëriñ Abdou ak mbay ñoom bi mu jógee ñu jugaalee it yéene jooju biñ egsee nañu waxtaan ci waa Angleterre nee naa dañoo fas yéene euh, laaj ndigal fas yéene jaayante ak sëñ Touba yoral sëriñ Touba añ yooyu ñuy amal ci ajjuma ji ajjuma ju ci nekk biñ ko xoolee nag euh, yàlla dogal tam jëwriñ ji nga xam ne muy sëñ Abdou Lahad Cerno nga xam ne ku ko xam-xam ko ci yaatal liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma moom it jamono yii mu ngi Angleterre ba mu eggee eh, ñu gaaral ko ko mu ànd ak ñoom yëkkati ci ay kàddu boobee bi kàddu yu jigee mbooloo mi daal ci wuy ba fii ni wax eh, nii egg nañ ci fanweeri trente personnes yoo xam ne amagun nañ ko muy fanweeri ajjuma yoo xam ne ajjuma ju ci nekk quatre-vingt mille francs lay doon loolu nag biñ ko xoolee at mi mi ngi war a nekk eh, cinquante deux ajjuma yoo xam ne buñ ko amee fukki weer ak ñaar euh, ajuma ju ci nekk rek moom waa Angleterre dañ leen daal di làmb seen jiba yónnee ko suñu affaire bu suñu def ko ci añ yi ñu fas koo yéenee tàmbali nag janvier bii ngi ñu jëm ajuma ji ci njëkk muy liggéey bu mag boo xam ne kenn ku ne xam ne ne li suñ borom digee ci pépp dugub nga jox ko sa mbékkum jullit mu mu mu dunde ko la ci yàlla digg ci ay tuyaaba kenn ku ne xam ne ko rawatina nga defal ko koo xam ne mi ngi ci kuy liggéeyal cheikh na ahmad al xaddim ci biir jumaay sëñ Tuubaa ji kon nag waa Angleterre ñun ñëpp ñu maase teewlu jëwriñ sëñ Fallou Diop ak sëriñ Abdou Akim Mbaye ak sëñ Abdou Lahad Thierno bi nga xam ne jàmbaar jàmbaare Muxaddamatul Xidma ji nga xam ne moo fa nekk ànd ak ñoom ci di yaatal liggéey boobu euh, muy liggéey bu mag boo xam ne tam liggéey rawante la liggéey njëkkante la liggéey la boo xam tamit moom ñoom ñoom ñoo am tawféex sëñ Tuubaa xaasale leen ko ñoom waa Angleterre ñu fa yéenee yor añi ajjuma yi euh, noonu tam ñun ñi nga xam ay coordinateur lañ tam ñun tam noonu ni ma ci sasoo jël ci benn ajjuma noonu tam laa ci woowee ñëpp noonu lañ ko yaatale képp koo xam ne rek ba nga bokk ci liggéey boobu bëgg cee bind wala nga bëgg cee jël ajjuma yi nu ci sa tem kàttan mën a tàbbee tam woonan la ci ci mboolem biir réew ak bitim réew kon ñu maase teewlu jëwriñ ji yàlla nañ ci dajeeg barke waq dee waaye jëli si na daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo inna li si na saarahoo li xidmati fa lahumu diyaara wasal jannati jërë ngeen jëfati seen bokkum taalibi Asan Jóob xidma Asan Maam Jaara waaw bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa yi mbokki taalibe yi ñoo ngi siyaare mbokki jullit di jiite ci suñu kàddu Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha yal na fi yàgg lool te ànd ak wér di ko ñaanal ahmad islam bi yëpp tey ñi ngi teew bi ci kanam sëñ Abdoulaye Bousso nga xam ni moo yor lu jëm ci aju ci jumaa ji muy Moukhaddamatoul Khidma ñu ñëw fi itam ci ndigalul sëñ Afiya Mbàkke ñëw fi itam ci ndigalul sëñ Afiya Bousso mi imam mi sëñ Afiya Bousso imam ak ndigalul Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bousso ndigal sëñ bi rek nag yàlla dogal ñu am yëg-yëg boo xamante ni ay mbokki taalibe la ko seen pas-pas digal muy ñu fas yéenee cinquante de ajjuma yi nga xam ni jàpp nañ ni at mi dana ko mat ñu jaayante ajjuma ju nekk añu jumaay Tuubaa ji nga xam ni bi xoolee añ bi xoolee bis bis añ bi toll na ci quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-deux mille ñu bëgg cinquante deux taalibe yoo xamante ne bii. Hmm. képp koo xam ni pas-pas booba yitteel na la. Hmm. incha allahu taala soo jox ak man Abdou Akim Mbaye wala ñoo ko sëñ Fallou Diop ca London. Hmm. danañ la bind. fii ñuy wax ak yow nag am ak yéen am nañ lu mat vingt et un personnes ñaar fukki nit ak benn bindu nañu. mu war a tàmbali mois de janvier te bëgg nañ balaa at maa jeex ñu am cinquante deux taalibe yooyu kon loolu message boobu la ñuy jàllale di ko yëgal ñëpp comme dañoo toog suñu kilifa. gaaral ko moom insha allahu taala mu dolli ci ay kàddu su ko defee muy yiw woo xamante ne bi ku ci di ku ko dégg rek insha allahu taala boo ci sooboo mën caa jëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abdou Akim Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu tamit sëriñ Fallou di nuyu tamit sunu bokk taalibe yi nekk ci Touba Angalgare yëpp fu ñu mën a nekk ak dëkk yi nga xam ne yëpp it Euh, jaar nañ fa ngir yaatal liggéey bi hmm. liggéey Moukhaddamatoul Khidma tàmbalee ko ci London Bristol Birmingham ba ci Scotland Manchester ba ci Liverpool ak yeneen dëkk yi nga xam ne demuñ fa te jokkoo ak jëwriñ yi fu mel ne l'est euh, ak euh, Leeds tey nag ñu nekk fii ci Touba kuréel kuréel Brighton ak sëñ Abdou Akim ak suñu mbokk taalibe yi fekk liggéey bu am solo euh, sëñ Abdou Akim ni mu ko waxee Touba Angleterre dañoo teewoon ci jataay diaspora bi daayira Moukhaddamatoul ma doon def biñ màggalee ba noppi fekk foofu dañ koy gaaral fere yi ak yi nga xam ne daayira bi gàddu na ko te bëgg ci taalibe yi yëpp ko suñu mbokki taalibe yëpp ko ba jàpp ci lañ doon leeral dépense u ajjuma ji nga xam ne ñi nga xam ne ñooy xëy si fajar bale jumaa ji nettoyé ko lal tànt yi taal fi cuuraay xëj ñëwaat midi et taxaw ci bunt yëpp jubbanti sàppe yi tàqale góor ñeeg jigéen ñi bu ñu tey lemaat tàpp yi balewaat mm. doon daanaka mbooloo moo xam ne dana mat ñetti téeméer ñetti téeméer nit wala ñeenti téeméer ñu leen di toggal añ saa su nekk ñu doon ñu doon leeral fere yooyu nga xam ne bi quarante mille la ci joxe si ñaar fi muy président daayira bi joxe quarante mille muy quatre vingt quatre vingt mille ñoom nag biñ Sëñ Fallou Diop bi mu jógee ci ndaje moomu ñëw leeral ko Sëñ Abdul Hakim yi ñoom génne ci xalaat bi ñu ci génne ñoom ci seen bopp ñu tàmbalee ko ci seen bopp façon ci jël ajjuma biñ gaarale loolu nag ni ñu ko leeral nii am mbokki taalibe yoo xam ne ñu ngi ciy jël kenn ku ne benn ajjuma ba mu des vingt un ba mu mat vingt et un mu war a doon cinquante deux loolu nag euh, xalaat la boo xam damay jàpp ne xëy na Sëñ Tuubaa moo moo moo mooy bëgg a dimbale ñi ci ñi ci jël rek ndax waxuma la joxe ñam rek ni mu amee tiyaaba waaye dañuy jàpp ne lépp lu lu ab jullit di def wala ab taalibe bi di ko def def ko mu jëm ci jumaay Tuubaa wala Tuubaa li Sëñ Abdu doon wax ne jaamu yàlla baaxee na fu nekk waaye Tuubaa dafay gën a sekkee dafay gën a sakkane hmm. loolu kon ndimbal la loo xam ne li tax ñu koy def vidéo nii ngir yaatal ko dañoo bëgg bokki taalibe bi yëpp dégg ko rek rawatina ñi nekk ci biir Angleterre képp koo xam ne mën nga cee jokkoo ak ñoom nga def ko fexe ba sàcc sa bopp ngir jël ci benn ajjuma ndax at mu nekk benn ajjuma lay doon muy cent dix pounds jàpp naa ne su ko yeneen réew yi déggee sax dañu leen ci xatal ndax taalibe yi moom luñ jariñu suñ tubaab rek la ñu wër rawatina lu jëm ci moom barabam de nga xam ne fa lañ mujjee gisee jëmmam te moo ko gënaloon ginnaaw Makka ak Madina moo ko gënal fu mën a nekk ci kaw suuf kon loolu ñi ñi ñi ngi rafetlu xalaat bi bu baax a baax ci turu Serigne bu so turu bureau daayira Moukhaddamatoul Khidma bépp di ñaan suñu borom it euh, may ko moom ñi ci mébét a jëf te yéwénal seeni mbir lool ak ñi nga xam ne dégg nañ ko te bëgg cee jëf kenn ku nekk suñu borom may la Euh, kàttanu ko nga rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik alayhi asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yépp ñu ngi leen di ziar di jiital suñu kàddu sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaqa mbàkke yal fi yàgg lool te ànd ak wér di yëkkati suñu kàddu rek di ko sof ci kàddu yi sunu jëwrin ki nga xam ne mooy jëwrinu mu xàddimaatul ma di ko coordonné fii ci UK mooy Cheikh faj li Diop ci yëg-yëg bi mu wax lu jëm ci liggéeyu jumaa ji nga xam ni ay mbokki taalibe la ko seen pas pas-pas seen ci Serigne Touba sant ñu yëg itam ne ab taalibe lu def lu teguwut ci ndigal ñu ñu ñu ñu laaj ca ndigal ba am ko ca muy ni mu ko waxee jaayante añu jumaay Touba ci juma yépp ci at mi ñu seet ko muy cinquante deux ajjuma wala cinquante ajjuma loolu nag mi ngi toll ci fukki junni ak juróom benn di quatre vingt mille fa bu dee ci fii ci fii ci biir réew mi ci xaalisu réew mi muy cent dix pound ci at mi nga xam ne at mi benn yoon nga ko ci joxe incha allahu taala fii ñuy wax ak yéen am nañ lu tolloog juróom benn weer ci kanam ndax mois de janvier lañ koy tàmbali te am nañ limu fanweeri nit yoo xam ne bindu nañ muy muy yitte joo xam ne nag incha allahu taala luy mat lay doon luy mat lay doon waaye nag liggéeyu njëkkante la kon jëf ju baax faw bëgg rek ñëpp yëg ko incha allahu taala lépp nag waxtaane nañ ko euh, jokkoo ci itam ak sëñ Abdou Lahad Bousso mi nga xam ni moo yor communication relation extérieure boobu jumaay xet ma jokkoo ci itam ak Serigne Assane Diop ba fas nañ ci yéene dox jëm kon ñu ngi ñu ngi sàkku mbokki taalib yëpp dégg ko te xam ni biñ ko yëkkatee rek war ko tàmbali mois de janvier am nañ fanweeri nit yoo xamante ni bindu nañ te fanweeri nit yooyu dana toll ci juróom benn weer wala juróom ñaari weer te itam euh, incha allahu taala ñu ngi koy ñu ñu ngi koy incha allahu taala da 52 yii nga xam ni moom lañ soxla. Euh, am nañ yaqin bu wér ne dana mat ba ëpp kon nag ñu ngi ko yëgal ñëpp di ñaan ñëpp soobu ci ndax ñëpp jariñu ci jërë ngeen jëf ngeen bal wax